Pape Birama Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay fay ngay coordonnateur coalition confédération syndicale euh, liggéeykat euh, Sénégal tey jii bu yàggul ñu gis ne euh, génne ngeen benn bataaxal di ci artu ci li nga xam ne moo jot a xew ci fan yi ñu wees ci mbiru Sonko Adji Sarr lan la lan moo leen jaaxal. waaw xam nga <clears throat> ñu ngi lay nuyu di rafetlu vraiment invitation bi. Euh, mbir mi ñun ñëpp ñoo ko dundandoo euh, naqarlu ko parce que yaakaar naa ni Sénégal fi ñu toll woon ak jéego yu ñu defoon euh, ci wàllu démocratie état bi ñu amoon ñëpp xaw ñu nawlu nawloo ci ci Afrique ak ci àdduna bi mm-hmm. gis ni dëkk jàmm la jàmm nag moo tax nit ñi di ñëw suñu réew di ci dugal seeni alal pour comme bi Euh, yokk suñu réew pour ñu ñoŋal suñu kom bi mais bu ñu demee léegi nag ba ñun suñu wàllu bopp ñun suñu biir du kenn ah, du ay doon étranger ñoo tudd ñu waxee keneen dañuy tooñ keneen parce que nit ñi ñooñu nawloo ñëw seen alal ci askan wi su boppam ñoo am seen naxar ñoom ñoo ko manifester loolu nag moo ñu tiital ñun en tant que acteur du mouvement syndical gis nañu ay crise dund nañu ay crise ñun dañuy intervenir sax ci yeneen réew seen i crise ay Malaisie ay ay Burkina ay ay Togo ay loolu dañ ciy intervenir sax ci wax mhm. di ci def sax ay intervention di envoyé ay délégation ñuy dem ñu ci wax au niveau syndical africain et même international yenn sax yi ñu def ay délégation sax boole ji ñun ay responsables syndicaux sénégalais ñu boole leen ci ay délégation ñu dem Afrique rek la ci ay crise waaye tey jii bu ñu dalee ñun tab ñu loolu ñu yaakaaroon ne sax ak si réew mais ñu gis li nga xam ne moo gën a jafe tey jii suñu réew muy xëyu ndaw ñi ñuy attaqué li nga xam ne tey jii mooy activité yi li ñu war a attaqué kay mooy les questions politiques peut parce que problème bi li li lëmbee affaire bi mooy problème politique la même bu ñu waxee ne y a un fait divers bu ci laxasu mais c'est un problème purement politique pourquoi aujourd'hui mu ñuy ciy détendre ba di toucher li nga xam ni mooy les facteurs économiques. kon daal pour yow yàq yi jaru ko woon. mais mais mais yàq yi jaru ko woon parce que bu ñu ko yàqee ñun suñu bopp la ñu yàqal ñaata temps lañ ciy def pour di reconstruire loolu ñaata temps ñaata temps lañ ciy def nga xam ni ndaw yi fi mu nekk ñu ngi toog di sàkku ay xëy. ñu ngi ñëw di amatuñu pexe di dem di di di ci lu mbëkk mi di dem loolu lépp ñu gis ko ñu ni kat war nañu fexe ba régler problème xëy ndaw yi ñu ciy waxtaan pareguñu ñu attaqué yooyu question économique yi ñu les les activités économiques tàjji entreprise yi toj établissement yi saccage yi mais loolu bu ko gis ci àdduna bi dañuy ku dugaloon sa alal naa naa dem Sénégal parce que jàmm moo fa nekk. ma mën a dugal sama alal rawale sama alal dëgg moom bu baax li may nga xam ne ñoom bitim réew la ñu xool dañu xool seen dañu yore carte du monde ñu xool sama jàmm nekk pour ñu mën a sécuriser seen investissement parce que yaakaar nañu dëkk-dëkk yoon la état de démocratie très avancé état de droit la ñu li kat war na mën a am sécurité juridique de l' investissement waaw bu ñu demee nag ba attaqué loolu le pouvoir économique ñu attaqué xol bi xol xolu réew mi la ñu bëgg a attaqué mais c'est grave il faut que ñun ñu yuuxu loolu moo tax ñu ne attention wax nañu luy raam ca ñag bu la jëm mais lii bu bu bu continuer mais on aura plus ah en tout cas dina doy eh, waar dina doy waar nga wax ko eh, xëyu ndaw yi eh, ñu am ñu ko yàq maanaam ñu am ay entreprise yi nga xam ne yàq nañ ko tey environnement des affaires mu menacé wu tey ndax yéen seen au niveau de la confédération am na li ngeen xayma ci ay nit yi nga xam ne ñoo yàqule te bokk ci seen confédération bi oh, te pareeguñu ci ci bilan bi def nañu ci rek ay estimation mhm. gis nañu li li lu bari na am na ñoo xam ni kër yoo xam ne tëj na fi mu nekk dafa tëj yow gis nga ko sax boo génnee ci rue publicité hier j'ai fait le xool naa grand surface yi ci bari les chaînes d'approvisionnement dañu tëj mhm. ñoo xam ne sax ñu ngi jël ay briques ñu ngi jël ay maçon ñu ñu fermer hermétiquement établissement yooyu kon xam nga foofu xëy amatu fa donc foofu déjà mën nga wax ne ay deux mille trois mille emplois wala cinq mille emplois nga gis ay ay euh, station service yi mais ni ñu leen ko jee xe te affaire Total rek doo ay affaire problème bu symbole de la France non non c'est parce que c'est des émeutes de la faim loolu mooy wax gis nga ay station sell ak yëpp la gars yi daj boo xoolee affaire bi dafa ñaaw am na ñoo xam ne c'est des ñoo ko moom ay ay Supéco c'est des c'est des Sénégalais ñoo moom loolu ñu attaqué leen am na ay magasin yu nekk fu ñu defar ay ñu yore ay euh, des kii électroménager ak yooyu ñu daj leen waaw jël jël bien yëpp saccagé dem seen yoon ñooñu c'est pas des étrangers c'est des sénégalais yu bonté qui investi à la sueur de leur waaw mais loolu bu ñu demee ba mu agsi mi lu mel ni am mais yeneen réew yi gis naa Burkina euh, bi ñuy daaneel Blaise Compaoré moi je fais Burkina tout chaque année daa fa dem deux deux fois wala trois fois mais ñoom seen révolution moom bu ñu koy mëne mais peut-être am na ay bien ay hôtel yu ñu yu ñu ñu lakk ak yooyu quoi mais am na ci yoo xam ni tàjji wuñu ay ci ay activité économique tàjji wuñu nii dañu def ay marche rek dem ci symbole économique bi dem tàjji ci assemblée nationale taal assemblée yooyu la ñu def mais tàjji wuñu ay activité économique tey ñun nag boobu ñëw fekk fi beneen maanaam bu mbas mi nga xam ne pare guñ ci euh, mu am ay yàq-yàq yi nga xam ne tey boo ko évaluer comme déjà pare guñu ci évaluation bi euh, liñ ciy génnee comme yàqu-yàqu dina bari euh, tey ndax jàpp nga ne suñu koom-koom yëkkatiwaat ko dina gaaw. waaw yëkkati moom tollaguñu ci jamono ñuy xalaat ni. dañuy résister résilience la ñu wax fi mu nekk nii ah jëloon nañu mille milliards ci sunu xaalis teg ko ci benn fonds bu ñu wax pour Covid mais loolu te jaar rek fi ñu ci dugaloon rek am na deux cent milliards ñu préparé woon pour entreprise yi. Mhm. entreprise ay affaire bor lañ leen wax ni dañ leen defal ay allègement defal leen ay borom yooyu ñoom gisuñu seen bopp ci loolu dañuy waxante dëgg rek ñoom gisuñu seen bopp ci loolu c'est c'est pas lee bor ay crédit moo leen intéressé. Mhm. li leen intéressé mooy nañ leen mën a subventionné ci yenn charge ci yenn poste jàppale leen ci ba ñu génn ci affaire mbas mi parce que mbas mi kenn kenn xamu ko kañ lay jeex ñi ngi tenté ñi ngi def ay campagne de vaccination yooyu yëpp mais kenn mënu wax ni suba lay jeex donc wax fi ay plan de relance ak yooyu ay yàq wax la li fi nekk mooy plan de résilience boobu ñu waxoon te je pense que ça a été très mal orienté ay kit alimentaire ay yooyu mais ana yi mais nit ñi gisuñu ko ay ceeb ki ay sukkar ki ay ay ki yog yooyu aliment qu'est-ce que ça signifie loolu les gens n'ont pas vu cela gisuñu ko xaalis bi tamit ñuy wax mille milliards mais il faut qu'on fasse le bilan bala ngaa wax relance ak mille milliards yi nga xool fan lañ ko dugal ak ñu ko sakkal pexe kon daal ñu jàpp nga ne xaalis gi ñu wax ne dugal nañ ko ci lii di euh, mbas mi euh, wax nañ ko xayma xool lan ak lan ak lan lañ ko ci lañ ci def lan lan yi les effets kenn mënagul wax léegi euh, impact bi mais effet yi immédiat parce que daaw la ren daaw ak la woon ba avril di dellu siwaat mais nañu xool effet yi lan la jëriñ mais est-ce que du ay ay ay ay booy jóge ay bitim réew kii ay jihadiste ki ay mbër ki yooyu askan woo génn ñoo sonn am naqar xiif mar daaj da ngay gis ay jigéen sax ay maire yu taw mais ñëpp gis nañu image yi ay saaku ceeb nga gis ay borom charrette yu yore ay saaku ceeb ay dëwleen dugal ba pare di ay signe de victoire mais loolu nga gis mais Sénégal mosuñu woon xam loolu ñun sur la valeur valeur cardinal yi nga xam ne moom la ñu incarné moom la ñu yaral nit ñoom lañ leen jàngal mais xamuñu ne day mar day metti mais nit ñi mun ko xiif mais bu ñu demee ba nga xam ne léegi Sénégalais yi ñooy dem di saccager honteux ñaaw na. tey ñàkkum xëy ndaw yi bokk na ci li gën a yokk situation bi bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi ni mu décrypté euh, lii di message bi euh, moom mu jàpp ne war na mën a réorienté waat euh, li nga xam ne mooy allocation budgétaire jëm ci xëyu ndaw yi nan nga jàngatee décision boobu nga xam ne jël na ko. waaw réorientation man dama yaakaar ni dañu war a à plat le tout dañu war a toogaat parce que bi ñu leen di wax nit ñi bi ñu dégg lu ñu wax c'est vrai que annonce la mais yaakaar naa ni concertation yaat ak tous les acteurs la concernés ñu mettre à plat vraiment le koor gu baax doon wax états généraux de l'économie xam naa ni jot na ñu ni états généraux de l'économie parce que kat yow yow am nga ay man ko man man damay man damay jaaxle yenn saa yi quoi yow am nga ay nattukaay ñu ne la quatre vingt boo jël téeméer boo jël ah juróom fukk ak euh, juróom ñeent fukk yi ak ñett ñoom ñooy liggéey ñooy yëngatu ci secteur informel ñu ne la téeméer ak euh, juróom juróom-ñeent téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak euh, juróom-ñaar ñoom ñooy yëngatu maanaam ñoo yore affaire comme ci réew mi ay informel lañu ci informel lañu yëngatu maanaam comme réew mi yëpp informel la waaw nga am loolu ñu jox la yooyu euh, indicateur ñu jox la yooyu statistique lan nga war a def sa orientation économique kay ngay orienté ci loolu ngay orienté pour jubbanti mais ngay ngay continuer rek la nga daan def bu njëkk ak bërkaati débu loolu ngay continuer la ñoom Abdou Diouf doon def Ablaye Wade di ko def Senghor di ko def ñu continuer di ko def mais malheureusement il faut arrêter il faut arrêter il faut ñu orienter l'action gouvernementale ñu xool priorité yi c'est pas ay téeméeri ministère ak juróom fukk ministre ak juróom doy na yoo xam ni mën nañu jël lii éducation bi lii di secteur économique yi lii nga xam ne moom moo yore la souveraineté mooy yi nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne ñoo yore ay ministère yi yore maanaam euh, sécurité bi loolu doy na ñu liggéey orienté mais ñi def ministère yu bari yi ñuy defar yëpp ak fonds yu bari yi kees yu bari yi mais kenn gisul dara amul benn résultat amul benn impact il faut changer il faut arrêter il est temps d'arrêter. Pape Birama Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay gërëm di la sant. ngay coordonnateur coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses